Euh, moom mu nekk ancien directeur général bu COSEC nekk tamit ancien député euh, nekkoon fi tamit euh, ministre conseil jamonoy Abdoulaye wadd nekkoon na fi tamit conseil spécial président Macky Sall jamono jami nekk premier ministre bu Sénégal mu nekk nag koo xamante ni tey xelam màcc na. jëm ci wàllum euh, cargaison maritime aérien et terrestre maanaam expert la comme buñ ko mënee waxee noonu euh, mu jiite tamit euh, muy jiite woon cadre PDS yi loo xamante ni tey diir bu yàgg yàgg la lu ëpp fukki at mu jiite woon cadre yu PDS xelam màcc na jëm ci wàllum politique tey moom la ñu invité tey fas yéene waxtaan ak moom ci ponk yu bare bare bari Cheikh Tidiane Touré Rewmi FM ma ngi am mbégte seq ak yow waxtaan ñoo ngi leen nuyu. Euh, maa ngi lay gërëm di la sant pour ñëw di ma interviewer parce que ñi nga xam ne dañuy jël micro di wax te am na wax yoo xamante ne nii duñ fa ñeme àgg ñun bokkuñ ci loolu kon boog réew mi FM fi ngeen tollu ak mi ngeen amee euh, identifier nit ba ne kii war na am na loo xam mën na koo wax sénégalais yi mu jëriñ leen mu nekk loo xamante ni sama xol daf ci sedd te mu nekk loo xamante professionnalisme la di leen encourager ci loolu incha allah lépp loo ma laaj rek dinaa li ci wax wax la origine bi tolluma foo xamante ni damay wax loo xam ne day safaanoo parce que déjà li may wax xam naa ko parce que dama ko vivre bu dul loolu sax jullit la jërëjëf euh, Cheikh Tidiane euh, Touré yow tamit ñu lay félicité bu baax a baax ci invitation bi nga xamante ni euh, daal di nga koy nangu fi ñu njëkkee waxtaan bi rek tey mooy Cheikh Tidiane Touré moom mooy kan boo ñu bëggoon a expliquer rek ngir suñu mbokk auditeurs yi mën a gën a xam tey ki ñu invité moom mooy kan nga wax ñu tuuti rek yow si sa jaar-jaar ci sa wàllum njàng. waaw man sama jaar-jaar li tax ma def politique. dama jàng France ba am sama troisième cycle spécialisé wu ba may spécialisé wu nag tubaab yi ne ma seen dëkk yooyu problème bi mooy transport ak ay tali yu baax loolu bu ngeen ko amul du ngeen développé ma dem nag université Dauphine jàng fa ba am sama troisième cycle bi ma amee sama troisième cycle nag euh, fekk Senghor di passé pouvoir bi Abdou Diouf ma bind ko xamal ko ni ko lii mooy sama spécialité te dama bëggoon ñëw liggéeyal Sénégal bi ma ñëwee ah déposé sama dossier ñu jël ma ministère de l'équipement boobu ministère de l'équipement moo yoroon transport aérien maritime terrestre ak travaux publics euh, ñu jël ma foofu jox ma nag direction des transports transport boobu ma yoroon bi nga xamante ne ni liggéey nañ ci planification yi xool circulation bi ak mi muy demee. def ay études yoo xamante ne ni dans dix ans dans vingt ans. stade Sénégal nii lay doxee ñu waroon jël ay dispositions ak résolution loolu ñu nekk ci di liggéey biñ ciy liggéey di ci liggéey ba nga xamante ne nii léegi nee nañu léegi dañuy def départ volontaire. Euh, cadre yu bari dem man ma toog ñu jël ma euh, ma nekk direction des travaux publics ñu commencé ci li nga xamante mooy defar tali yi. ak yëpp bi ñu nekkee ci euh, defar tali yi ñu créer beneen service boo xam ñu ko tuddee planification des transport mooy li xew tey fii léegi vingt ans naka lay demee ma nekk ci cadre bu mag ñuy évoluer ci loolu. léegi nag li nga xamante ne nii moo tax sama xol ma ma xawoon a mer mooy bi ñuy defar tali yi marché yi nga xam ne doon jël di ko jox tali yi dañ ko doon jox ay nit ñoo xamante ne nii tali boo defar. boo at mi dellusee mu yàqu. ci jamono Abdou Diouf ci jamono ay. d'accord danañ si ñëwaat. après mm. euh, loolu kon mooy bi nga njëkkee dugg pour liggéeyal euh, liggéeyal Sénégal. Sénégal effectivement. Ah, d'accord waaw loolu nag. Euh, bi nga gisee bi ma gisee nag ni ñoom ni ñuy liggéeyee ak ni ñuy joxe marché yi baaxul ma daal di bind Abdou Diouf faalewu ma ma bind ñëpp faalewu ma ma daal di ne nag bu dee lii ñu koy changer mooy il faut nga dugg ci partie politique. xeex pour lii jóge fii ak kii ñëw mën a appliquer politique bi nga xamante ni moo baax ci Sénégal. am mm-hmm. na nga bàyyi woon Abdou Diouf. mosuma nekk ak Abdou Diouf man fonctionnaire laa woon. Mm-hmm. ne fonctionnaire laa woon mais en tant que fonctionnaire dama amoon ay projet yoo xamante ne nii ñu liggéey ci daal ne Sénégal bu fekkee mën na développé wu il faut que mu am autorite mm-hmm. il faut que mu am plan de circulation. il faut que Dakar ñu def ko nii il faut que oto yi buy ñëw. ñu jéem a xool naka lañ koy lijjantee et tout ce qui s'ensuit. léegi nag ñu ne woon <coughs> kon étant donné que transport bi baaxul naka lañ koy defee ñu étudier loolu yëpp. mais nag li nga xamante ni moo doon gàllankoor bi mooy projet yooyu ñu doon def yëpp Abdou Diouf na l'a jamais appliqué bi mu ko appliqué nag man ma mer daal di ne lii il n'en est pas question Sénégal ginnaaw la jëm kon bokk looloo tax nag ma ñëw seeti parti politique bi nga xamante moo gën a représenté wu Ablaye Wade. ma gis ko daal di ne ko léegi mu ne yow cadre bu toll ni yow looy wut fii ma daal di ne ko c'est parce que ni ñuy liggéeyee normalul mu ne ma waa kon loo may proposé ma ne que plan boo xamante ne nii boo jëlee pouvoir ndax di ko def mu ne ma jox ma programme bi ma jël programme bi jox ko ko ne lii ak lii ci tali yeeg oto yeeg ainsi de suite nii lay demee mu daal di ne ma ah mu ne ma léegi kon nañu commencé xeex bi léegi nag lii mënoo ko def te defoo politique ma ne que man y a pas de problème mu ne kon da ngay dugg ci politique bi. bu ma gañee sa programme bi dina ko appliquer loolu la ma lay wadd wax ma dugg nag ci parti bi nekk fa dawal tuuti ma gis ni Ablaye Wade avancé wul nit ñi topp nañ ko mais boroom xam-xam yi topp ñu ko ma ñëw ne ko président gis nga li tax jëloo réew mi c'est parce que ñi la topp xëy na ay xale la ñu bëgg nañu ak nit ñi mais boroom xam-xam yi il faut mu ànd ak yow mu ne nag la ñuy def ma nekk que nañ créer benn coordination des cadres du PDS mu ne may sëgëm yàq xalaat loolu jox naa la responsabilité nga créé ko mu ne ma naka lañ koy alimenté ma ne que meeting ngay def rek woo cadre yi li ci def ma dinaa ko rek ba mu woowee cadre yi nag ci la ñëpp ñëw ñoom Macky sàll ak ñoom ñëpp ñëw Macky Sall bi nga xamante ne yàlla def na ko mu nekk président bi mu ñëwee dama ko ni yow xale nga parce que fii nga toll nii euh, am na yoo xamante ne nii pareegoo woon sa sa sa yaa ngi woon sa diplôme ingénieur kon mën a goo nekk cadre. ci la ma am Ablaye Wade waxee daal ne yow xanaa nag bu fekkee ni même bu fekkee ni parewul mais sëgam bëgg na ñëw ci parti bi mais accepté que noonu nag laa ko jëlee encadré ko forme ko ñu continuer nag liggéey boo xam ne kii na d' accord jërëjëf euh, Cheikh Tidiane Touré léegi danañu dikk ci euh, li nga xamante ni moom mooy euh, PDS bi nga nekk PDS ak bi nga xamante ni yow yaa jiite cadre yi ak ni nga si dugalee président mac Sall mii nga xamante ni tey euh, moom moo nekk euh, président bu Sénégal ak euh, ni nga nekkee woon tamit conseil spécial am jamono ju mu nekk premier ministre. mais fi ñu bëgg a dooree nag waxtaan wi monsieur Touré mooy yow da nga nekk expert cargaison maritime aérien et terrestre ci sa biir wax nga ne dafa am benn projet boo xamante ni tey tegaloon nga ko Abdou juuf ndax yow da nga jàpp ne réew. pour mu développer wu il faut mu am transport bu baax il faut mu am tali yu baax. xalaat boobu nga xamante ni tey doon nga xalaatal Abdou Diouf euh, vingt ans ci kanam lan mooy am wala lan mooy euh, lan euh, lan mooy dox. amaana yow li nga sa xalaatoon moom doxalee woo ko noonu. waaw léegi li ma bëgg ñuy waxtaan ci comme yow sax xam-xam ci loolu la màcc. ndax Abdoulaye Wade ànd ngeen yéen ñaar. bi mu yoree Sénégal. Mm-hmm. lu jëm ci wàllum transport ak wàllum tali. ndax yow jàpp nga ne réew mënul développer sans loolu. yan jéego la si Abdoulaye Wade def. voilà jéego bi si Abdoulaye Wade def moom sonnul boo gisee Abdoulaye Wade li mu gën a réussir ci politique am ci mandaam mooy transport tali yi autoroute yi ainsi moom la gën a réussir. te loolu coordination des cadres ak li nga xamante ni étudier nañ ko. ñoo ko jox te accord la woon bu ma defoon ak moom ne ko bu duggee lii lay def kon boobu ci magistère am boo gisee ay Dakar dem dikk <coughs> nga gis CETUD <coughs> ñoo ko mettre sur nga gis sur le plan transport yépp aérien maritime et li ci Ablaye Wade réussir mooy li nga xamante ni mooy programme bi ñu ko joxoon léegi nag bi nga xamante ne nii dugg nañ ci ñu dugg ba ci digg bi euh, mu am yeneen enjeu yu ci nekk aéroport de Dakar aéroport de Dakar bi nga xamante ne nii mooy Blaise Diagne actuellement ma ne ko waaw maître def nañu lu bari parce que autoroute bi ñu ngi koy defar tali yi ñu ngi leen di augmenter carrefour yi ñu ngi leen di aménager mais transport aérien bi yoof gi il faut que ñu changer ko mu ne Cheikh Touré nommé naa la pour nga dem seetal ma terrain bu baax boo xamee da nga ko def dina baax. ay pour aéroport. pour aéroport bi ñu dem di wër fu ne ñu dugg fa ba fi nga xam ne fi la toolam yi nekk ñu xool foofu mais bi ñu dee étudier foofu système vent bi ni mu demee woon baaxul ñuy wër di wër ba dem jas ba ñu demee jas ñu analyser ko situation bi ak yooyu ñu ne kon fii mooy emplacement bu baax bi. Mm. loolu mooy décision bi Ablaye Wade di jël. pour que Diass ñu def fa aéroport bi te kooku ci suñu recherche ak suñu kàttan la jógee pour ñu def ko. Mhm. loolu moo indi aéroport bi nga xamante ne moo ci nekk. mu ne ma waaw léegi lan la ma ne deuxième problème bi mooy Dakar xam nga presqu'île la. Mhm. nit ñi ni ñuy déplacé woo. Mhm. di jóge ay tënge di ñëw. di delluwaat huit cent et quelques huit cent mille personnes yoo xamante ñoo koy def tous les jours. mu ne waa kon naka lañ koy def ma ne que car rapide yeeg yooyu du ko arrangé problème dañuy def transport de masse ci le train bleu ñu inventé ko mu daal di génn ñëw loolu moo indi train bleu ba pare nag mu ne ma qu'est-ce qu'on fait ma ne ko léegi beneen bi mooy sur le plan maritime mu ne maritime bi lan nga ci def ma ne ko ay bateau taxi la ñuy wut bateau taxi buñ ko defee comme ça ñi nga xamante ni nii mënuñu jël tali bi ñëw ñu jël euh, ay bateau yoo xam ne day jógee Rufisque di ñëw ba dakaar ñu wàcc leen fii deuxièmement gaar bi train bi mu nekk loo xamante ni moom it dinañ ko mën a appliquer pour mën a dem léegi nag loolu yépp bu nu ko dajalee ñu xalaat ni dakaar ci boppam pour nga yi fi nit ñi mën a dem ak yooyu il faut que ñetti yëf nga def ko mooy transport maritime bi nga utiliser ko mhm. autoroute bi nga defar ko ak train bi nga def ko mu ñett nekk ñetti mode de transport nga xam ne yooyu yëpp du nekk concurrent dañuy conjugante seen biir. comme sa Dakar dinga mën a dugg di nga mën a ñëw. embouteillage bi. embouteillage bi bu autoroute bi taxawee. TER bi nga xamante ni nii waxoon nañ ko mais pas ci application Macky Sall bi kooku buñ ko créé. mooy ah waxoon ngeen TER. ah oui parce que il fallait que automatiquement sous forme de lan euh, li nga xamante ni moo fi nekkoon transport ferroviaire bi ñu développé ko. d'une manière boo xamante ne nii ba euh, euh, train yi bu jógee fii day daw ba Rufisque mhm. ba fa jógee ainsi comme sax ñu évacuer ndoo yëf yeeg yooyu yëpp quoi mhm. Macky Sall bi mu ñëwee nag la créer affaire u terre bi parce que idée boobu moo doon li nga xamante moo doon permettre sénégalais yi mën a déplacer dem génn Dakar dugg biir Dakar transport maritime bi également ñu créer li nga xamante ne nii moo fi nekk muy bateau taxi yi ak euh, li nga xamante ne nii yooyu yëpp buñ ko conjugué nit ñi dinañ mën a dikk dinañ ñëw. Ah, mais mais monsieur Touré est-ce que embouteillage yi tey ñu bari dañuy wax ne euh, yu bari ay milliards mën na koo. très bien mhm. embouteillage bi lenn moo ko indi xam nga bi nga xamante ne ni euh, dañu def étude yi ñu nekkoon Dakar oto yiy dugg il faut que ñu teg leen minimum cinq ans oto yi fi dugg ku ci dépassé cinq ans automatiquement dañ lay tere nga dugg. yëf si di dox Macky Sall bi mu bëggee jël pouvoir bi mu dem ne leen voilà man li ma bëgg mooy yéen immigré yi Ablaye Wade da leen tere seen oto yi dugg si mais man su ma duggee dinaa def huit ans huit ans yooyu mu créé façon oto bu nekk dugg senegal fekkee ñu loolu moo indi embouteillage Sénégal yépp mooy Macky Sall dafa forcé au départ. Euh, bato yi euh, oto yi nga xam ne waroon na dugg waroon na ko bàyyi ci cinq ans comme ça ñu mën a contrôler système de départ beeg yooyu. waaye mu def ko huit ans si lépp parce que pont yeeg yi ñu waroon def yëpp dañ ko defee woon sur la base comment dirais-je des voitures yoo xamante du dépasser cinq ans ba mu ko indee huit ans te jëlul disposition yi <clears throat> ci la situation bi ñëwee oto nit ñi di dugg di dugg di génn mu indi ay problème yu bari te xamul nu ne en dehors oto yi. Euh, transport de masse moo mën a régler problème yi comme ni ma la waxee système mu train bleu bi transport maritime bi waroon na am euh, système boo xamante ne nii nit ñi bu ñu bëggee déplacé wu ci biir dakaar mu am genre tramway yoo xamante ni day jëlee day jógee Parcelles Assainies ñëw ba biir Dakar beneen bi ñu couper ko en deux. mu mën a ramasser waa Pikine ramasser ñeneen nga xamante ni nii le problème se pose pas kon problème mu transport individuel yi kooku moo baaxul Sénégal. dañu waroon def transport de masse. nga xam ne ay bis yu mag lay doon wala moom ay tramway yu mag nga xam day jël nit ñi génne leen jël nit ñi dugal leen. li ci def nag nekk loo xamante ni et tout ça loolu moo doon solution bi mais moom il a pas respecté. d' accord eh, euh, monsieur euh, Cheikh Tidiane Touré euh, danañu euh, yow la ñu invité tey ci pencum réew mi mais gis nañ président Macky Sall ma ngi def benn procès BRT comme ni nga ko waxee nit ñu baree bari mën na leen a jëlee ci banlieue bi indi leen ci biir Dakar ñu bari mu jële leen ci biir dakaar yóbbu leen BRT boobu noonu ak projet bi lan moo ci sa xalaat. boo BRT bi <coughs> idée bi baax na. mais BRT bi à la place de BRT bi dafa waroon def ay ay tramway. c'est-à-dire. tramway mooy genre oto yooyu day mel ni euh, saxaar. Mhm. au lieu muy daw ci tali bi. Mhm. day am ay roue ay kii nu wutati day mel ni ni ni saxaar di dawee. Mhm. kooku lañu waroon jël diviser ko en quatre mu bu ci nekk ñu def ko ci benn pôle jam ñaajo euh, mu jógee nu mu tuddati euh, mu jógee géejawaay Parcelles Assainies un peu partout fii nit ñi kii ñu mën ko ñu mën ko euh, aménager ba nga xamante ne nii loolu mooy li nga xamante ne nii moo doon solution bi loolu moo warata waaye moom mu bàyyi loolu ah di ñëw di indi ay BRT boo xamante ay oto la oto yi foog nga casser rali yi et tout cela kooku day nuru loo xamante ne nii peut-être ay nit la ñu bëgg a defal arrangement mais le vrai problème c'était un système de transport ferroviaire boo xamante ne nii euh, tramway bi moo doon solution. mais par PRT bi. d'accord léegi lu jëm ci <coughs> train express régional. Mm. ñu bari dañuy wax ne projet la boo xamante ni tey du woon lu Sénégal soxla ñenn ñi tamit euh, nee nañ même bu ko Sénégal soxlaa du jamono ji wala liñ si dugal si xaalis dafa bari te ba léegi nii dawagul euh, projet train express régional yow lan moo ci sax xalaat. voilà kooku projet bu baax la. parce que presqu'île lañu nee naa la au départ day am huit cent mille personnes yu jógee Dakar yuy jógee yuy jógee Tëngéej di dugg Dakar car rapide yi mënu ko regle autoroute bi transport ki mënu ko woon regle kon boog il fallait impérativement ñu créer système boobu mu nekk mu remplacer mu seconder train bleu pour ñu def ko projet bi baax na mm. mais niñ ko defee moo baaxul baaxul niñ ko defee niñ ko defee mooy dañu dañu dañu dañu dem déjà ci liggéey bi parce que même circuit bi Nigéria def na ko mais Sénégal dépensé na ci plus de mille et quelques milliards te fële quatre cent et quelques milliards la ñu joxe c'est pas normal rax ci dolli ñun euh, BRT boobu dafa waroon nekk euh, en collaboration ak euh, système de transport ak transport autoroute bi ak ñi nga xamante ne nii genre euh, car rapide yi ak maritime bi également ñu développé ko à partir de ce moment kon euh, TER bi du poser benn problème mais léegi dugal nañ ci xaalis boo xamante ni maîtriser wu ñu woon les tenants et les étude bi ci boppam wane na ni yaa a des surfacturations yoo xamante ne nii arrangé wul problème bi loolu mooy encore la problème boo xamante nit ñi dañu am seen kër ñu xëy suba génn leen et te defuñu étude bi nga xamante ne nii. passage bi nga xamante ni dañ ko war a def ndox mi bu ñëwee naka lañ koy étudier ak naka lañ koy euh, kii donc c'est une étude boo xamante nii dafa yàkkamti gaaw ah loolu moo indi situation bi mais projet bi en lui-même bu ñu ko defee woon ni ñu ko waroon defee c'est un projet boo xamante ni c'est extraordinaire mais. je dafa cher. ni ñu ko doxalee ay plus de mille quelque quelques mais distance bi Nigéria def Maroc def ko Sénégal dépensé na deux fois plus. moo tax ba léegi affaire yi mënul mënul mënul dem léegi nag euh, ñu jël ko daal di ne waaw mën na daw ak euh, ak gasoil après jël relais bi électricité bi ainsi suite mais dëkk boo xamante ne nii ñëpp xam nañu courant bi matul boo ko defee ça pose de sérieux problème parce que di nga daw ba ci digg bi bu fekkee ni amuñu assez de carburant assez de kii euh, alimenté wuñ ko bu baax là automatiquement les problème qui se posent mooy électricité bi ne peut pas être supplémentaire c'est-à-dire complémentaire sur ce plan la mm. donc euh, au début jusqu'à la fin c'est un échec sur la ah sur la réalisation li doon réussite bi moo doon tout simplement ñu def de telle sorte que euh, train express bi ñu travailler sur le déplacement des personnes c'est-à-dire nit ñi nga xamante ne nii ñu ngi dëkk en banlieue buñ ko mënul jël mën a déplacé wu ñu maîtriser également évacuation ndox mi parce que fi ndox mi waroon jëw nga bloqué ko ah là automatiquement ay inondation yoo xamante ni loolu mooy point yi nga xamante ne nii moo moo tax BRT bi projet bi bu ñu ko doxalee woon ni ñu ko waroon doxalee automatiquement ça problème léegi euh, Cheikh Tidiane euh, Touré lan moo tax euh, train express régional mu cher ci Sénégal te yow ni nga ko waxee sànq yeneen réew yi seeree euh, wu fa noonu lan moo tax. waaw loolu ça se comprend parce que bu fekkee ni yow da nga bëgg a def un projet boo xamante ne nii jiitaloo intérêt bi intérêt Sénégal bopp ci population bi nga jiital loo xamante ne nii jox ko ay ñoo xamante ne nii maîtriser wuñu les tenants et les aboutissants mais bu ci nekk day am surfacturation problème de surfacturation moo tax xaalis bi nga xamante ne nii état bi dugal na ko ci doyul. moo tax ba léegi am na loo xamante ni war nañoon nañ ko complété mais ba tey état baa ngi wër xaalis et tout ce qui s'ensuit et pourtant avant ñu def élection Macky Sall nee na woon dina daw ba ñu indi BRT bi ba ñu indi kii bi nu mu tuddati. Euh, euh, euh, commencé woon nañ mel defoon nañ saaru inauguration yooyu sax. voilà ñu def inauguration yi di dem fii et tout sax tout ça c'était politique mais bu man su ma rombee autoroute bi gis. terre bi ni mu ni mu ni mu taxawee ak pënd bi ci nekk ak milliards yi mu jar et tout cela day nekk loo xamante ni c'est pas ça et puis aménagement bi aménagement bi mhm. te jii pour train bi commencé woon di daw da ngeen di xool raay yi nu ñu ko defaree mhm. am na yu commencer di def di di mais est-ce que est-ce que Cheikh Tidiane Touré sàkku woon nañu def benn audit financier technique ci train express régional mais fa la jëm parce que lii amul kenn koo xamante dañ lay nommé président de la république nga bàyyi situation bi demee nii il faut nga xool li mu ci def naka lañ ko defee ak fu mu jëm et tout cela nga mën a évoluer mais képp ku nekk président la république ñëw dugg ci affaire bi ak situation bi di nga am de sérieux problème parce que lii moom euh, non seulement échec la et bu commencé daw encore c'est pire Euh, Cheikh Tidiane euh, lu jëm ci wàllum dem bi ak dikk bi euh, ci suuf si ak ci ak ci jaww ji ak ci géej gi yan jéego yow nga jàpp ne moom la ci gouvernement bu Macky Sall bi def 2012 ba ñu fi toogee ba léegi. bon tey ji tey jii man en tant que expert maritime dama xalaatoon ni nu mu tëddee port de Dakar. moo waroon nekk premier port parce que boo jógee Europe di dugg ci Sénégal boo dee dugg ci Afrique Sénégal ngay jëkk jot après Côte d'Ivoire il faut encore trois jours de plus léegi kon trafic international bi nga xamante ni ñun ñooy desservir le yi euh, boo gisee Abidjan ne woon ñuy concurrencer c'est parce que euh, li ñu waroon def saxaar gi buy évacuer yëf yi euh, marchandises yi ça posait des problèmes de sérieux problème donc daawu ko def te pourtant le port de Dakar dafa waroon am li ñuy tuddee porti portique mooy système boo xamante ni mën na décharger bateau en espace de vingt 24 heures bateau bi dem portique yooyu pour ñu am ko c'est tout un problème bàyyi port mm-hmm. la kii négocier pour que mu ñëw porti yooyu am fa au niveau des conteneurs or ça pouvait être encore plus intéressant deuxièmement circulation bi au niveau du port kenn mosul gis lu mel noonu ñu jël Dubaï port teg ko ci diggante euh, comment dirais-je Môle 4 ak Môle 8 kuy dem tous les transport maliens et bloqué amul dara dara lu mën a déplacé wu kooku day impacté wu ci bateau yi nga xam ni war nañu chargé te day def de telle sorte que le port nekkul loo xamante ne ni day am rentabilité nga am un nga nekk armateur borom bato ñëw indi sa sa bateau sa sa bateau bateau bi war a def deux jours dem def fi une semaine day fay lépp yëf yi day gën a cher taxe portière et tout cela deuxièmement ñu jël concession bi jox ko ay étranger ay tubaab rek ko yor mais tubaab yi ak lu ñu ko mën a yor ñoom sur le plan rentabilité la ñuy gën a mettre l'accent mais sur le plan des infrastructures kooku port moo ko war a jël def ko mu nekk loo xamante ne nii moo impacté wu sur ce qui se passe au niveau du port. man bi nga xamee jël naa COSEC li ma njëkk a wax mooy ni port de Dakar nekk porte d'entrée sur l'océan bu Mali ñun tamit war nañu am porte d'entrée pour l'UEMOA mm-hmm. parce que à partir de ko mën nañu toucher tous ces pays de l'UEMOA te Mali moo dox suñu diggante. kon ni ñuy servir Mali sur le plan transport maritime noonu la ñuy servir ñoom it sur le plan du transport terrestre. ma daal ne kon ni def mooy nan créer ay entrepôt du Sénégal au Mali xam nga loolu pour lan. Sénégal au Mali mooy bu fekkee ni tey jii pays de l'UEMOA am nañu problème de produit. produit yi nga xamante ne ni comme yaboy bi bu nekkee excédentaire dañ koy jël yóbbu ko ci entrepôt yooyu bu ñu ko yóbboo ci entrepôt yooyu bu ñu waree def léegi euh, bu ñu ko waree jaay bés bu yëlee amee euh, pénurie ñu jël ko automatiquement dugal ko ci mu mën a alimenter loolu xam nga kooku c'est stratégique parce que y a pas de raison Mali am fii ci port de Dakar place boo xamante c'est pour les Maliens te Sénégal amul place boo xamante ne nii au niveau du Mali pour desservir les moi mais waaw mais euh, Cheikh Tidiane euh, Touré. Hmm. kon bu ma la déggee mooy Sénégal ni ñu war a noo jëfandikoo. port autonome de Dakar. ak rentabilité bi nga xamante ni waroon na koo mën a am. ak xaalis bi nga xamante ni waroon na ko mën a dugal. da nga jàpp ne échec la. échec total. Ah ça n'a pas ça n'a pas ça n'a prospéré te ñun on a avantage boo xamante ni sur le plan géostratégique. Hmm. c'est euh, nu mu tuddati Dakar moo gën a jege booy dugg Afrique mooy porte bi. Hmm. kon boog kenn waruñu woon concurrencer. Ah. mais bi ñu demee ba nga xamante ni Abidjan mu ñuy mu ñuy concurrencer. Mm-hmm. te ñoom ay tali rek lañ yor. Mm-hmm. ñun ñu yor tali. Mm-hmm. ba pare yor saxaar gi. ma ne kon y a quelque chose qui ne va donc équipement bi ñu waroon def pour mu décharger bateau pour mu gaaw pour fluidité bi mën a am foofu la ñu échoué. et c'est ça qui explique la situation telle qui se présente. Euh, jërëjëf euh, mbokk yéen a ngi déglu rajo mi FM seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h tey ñu dalal nag Cheikh Tidiane Touré. Euh, mu nekkoon ancien directeur général bu COSEC nekkoon fi ancien euh, ministre conseil su Wade euh, nekkoon fi tamit ancien député expert cargaison la maritime aérien et terrestre moom la ñuy fas yéene waxtaanal yàgg na nag ci parti bi di PDS jiite woon na sax cadre yu PDS yi monsieur Touré. Euh, wax nga ci li nga xamante ni tey moom mooy soxal wàllu dem bi ak dikk bi ci Sénégal ndax yow da jàpp ne euh, dem ak dikk euh, tant que réglé wuñu ko développement pour mu am dafay dafay jafe léegi gis nañ président Macky Sall Abdoulaye Wade commencé woon na ay autoroute bien vrai que nee nga train express régional bi ak BRT bi xalaat bi rafet na mais ni nga xamante ni moom lañ koy doxalee euh, du noonu sàkku nga sax ay leeraange am ci ngir keneen ku fi toog ci terre bi ndax da nga jàpp ne am na surfacturation mais gis nañ autoroute Abdoulaye Wade def na ko fi ñenn ñi pourtant dañ doon wax ne li fi Abdoulaye Wade def ci autoroute autoroute boobu dafa cher euh, ba nga xamante ni ñenn ñi ñoo ngi sàkku ñu daal di koy euh, renégocier loolu tamit yow lan moo ci sa xalaat. waaw foofu <coughs> lenn daf parce que bi nga xamante nii négocier nañ ak français yi ñu jël Eiffage jox ko yëf yi mais Eiffage li mu dugal ci xaalis bi ak état Sénégal li mu dugal mais bokkul mais Eiffage tey jii ñoo gérer les tenants et les aboutissants. Mmh. loolu c'est inadmissible. donc ce contrat la dañ ko war a reprendre remettre les pendules à l'heure remettre tubaab ji à leur place pour que sénégalais yi. xam di nga xamante ni moo ci nekk mooy seen avantage deuxièmement pour ce qui concerne l'histoire de Total autoroute bi Total lañ fa bëggoon dugal autoroute bi ba mu jeex ay Total la fi nekkoon il a fallu que état bi taper sur la table pour que au moins DSK xuma BSK mooy compagnie mhm. kii boobu ñëw dugg si kon boog loolu mooy li nga xamante ni mooy poser de sérieux problèmes deuxièmement jam ñaajo xam nga tey jii ci ndox mi ñu ngi ciy kii euh, am na problème mais boo gisee autoroute bi ni ñu ko construire c'est une bonne chose mais tenir nu compte euh, aménager wu nu système boo xamante ni moo ko comment dirais-je route bi pour que ñu mën a cohabiter boo xamante ni ku nekk dina trouver sa compte donc aujourd'hui autorite bi ba euh, niñ ko niñ ko niñ ko niñ ko négocier dafa nekk loo xamante ne nii normalul te kooku effectivement Ablaye Wade def na ci erreur bu mag mais bu mu ci defee erreur c'était Macky Sall qui était le premier ministre donc erreur bi et partagée mais bi mu ñëwee après Macky Sall moo continuer mu yokk ko bi mu ko yokkee également il n'a pas waaw il n'a pas tenu compte de tout cela mais xam nga li ci nekk ba nekk ci mooy gis nga tubaab yi te ñu continuer toujours di ñu coloniser waaye bu fekkee da leen a soxla boo bëggee dem élection ñoom ngay gis ñu jéem a xool ñu jéem la financé boo bëggee dara moom la mais après nag seen intéret moom mooy jiitu à tous les niveaux même chinois yi boo xoolee ñoom tamit ni ñuy financé mais ñoom su leur problème mooy dinañ liggéey mais duñu former kenn mhm. seen autoroute yi guddi lañ koy liggéey sénégal yi duñu gis dara kooku it il faut impérativement ñu xam ne Chine bi muy développé wu képp koo xamante yaa ngi bëgg a jënd avion wala question da lay naan sama dëkk nga koy liggéey nga indi sa matériel yépp liggéey ko fa un an après ñu ñu ñu mhm. un an après ñu gérer affaire bi ñu mhm. xam ni euh, situation bi tu comprends mu nekk transfert boo xamante ne nii automatiquement dina arranger Euh, comment dirais suñu pays suñu dëkk yi. d'accord léegi est-ce que jàpp nga ne tey euh, maanaam ndax xam nga Macky Sall ñu bari dañ koy tuumaal ne lépp lu baax ci réew mi moo xam ay marché la euh, daf ko jox ñi nga xamante ni tey ñoom ñooy ñoom ñooy étranger yi rawatina entreprise tey étrangères yi ñu ne lépp loo xamante ni rek ci Sénégal la ñoom lañ ko jox. Euh, yow loolu lan mooy bëri na ay sénégalais yoo xamante ni dañ koy ñaawlu jàpp ne Macky Sall moom tubaab bi la fi nekkal euh, yow lan moo ci sa xalaat. waaw mais lii sama xalaat mooy dafa am euh, niveau de technicité boo xamante ne nii am na entreprise yu ko mënul. ci Sénégal waaw. Mm-hmm. comme grand travaux yi. Mm-hmm. ak pont yi. Mm-hmm. ñaata société sénégalaise ñoo ko mën defar. xam nga bariwul. mais li état bi waroon def. mooy képp ku fi bëgg a marché il faut que mu associé ak sénégalais. bu mu associé ak sénégalais. mu am ci part importante nga xam ne matériel boobu bu paree. mën nañ ko léegi les sénégalais pour que ñu mën a développer ñoom tamit loolu mooy problème bi. mu ngi mel ni euh, production bi. yow bu fekkee dangay ngay gerte xëy jaay gerte yi yóbbu Chine mais produit fini bi ak li nga xam moom la ñuy transformé ak li mu mën a indi yëpp boo ko maîtriser wul mais doo mën a dem. jël produit rek yow yóbbu ko foo xamante ne nii ñoom dañ koy jël utiliser ko ba pare ñëwaat di la jaay loolu kooku c'est pas normal il faut que mu am société de transformation lu mooy loolu. mooy tey jii toutes les sociétés sénégalaises nga xam ne les grands travaux la ñu nekk. et tout cela am na yu bari yoo xam ne maitriser wuñ ko mais dañu war a associer avec des étrangers ñooñu. dans le cadre de transfert de technologie. Mhm. comme ça Sénégal yi mën a jël relais. waaw mais est-ce que état bi tamit ma ngi jàppale entreprise euh, yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi maanaam secteur privé bi ñi fi yor ay entreprise euh, est-ce que état bu Sénégal taxaw gi mu leen war a taxaw dëgg euh, ma ngi leen koy taxaw bon xam nga li ci nekk par exemple booy wax chômage bi ñu ne chômage bi il faut impérativement gouvernement beeg wala état bi def ko liggéey du gouvernement wala kii ñoo koy joxe état bi. privé yi ñoo koy liggéey mais privé yooyu bu fekkee nii ñi gën a am importance ñooy la ñuy financer tubaab yi mais tubaab yi ñoom it dofuñu duñu jël seen ñi ñu formé jox ko sénégale yi ba pare ñu bàyyi seen nit kooku mooy li nga xamante ne mooy mooy difficulté bi. Mmh. à tel point que dañu waroon poser ay ultimatum. Mmh. daal di ne lii mmh. pour nga mën ko def il faut que nga jël sénégalais yi ñu mën a évoluer ak mu nekk loo xamante nii bu paree dinañ ci am ñaar dinañ am suñu tali te dinañ am compétence bi nga xam ne loolu la en ce moment benn société daal laa fi gisoon mooy defe naa euh, CSE bi moom laa gis au niveau de la sous-région mu doon dem un peu partout mais ko génn àddina bon te situation bi ni mu demee mooy relais bi aujourd'hui tubaab yi ñoo ko jël foo mënti dem rek muy travail yom importance tubaab yi ko jël même réflexion monument yeeg ay gaar baak yooyu yëpp ay tubaab ñoo ko jël ça c'est pas Euh, jërëjëf euh, Cheikh Tidiane euh, Touré yow lañu invité tey ci émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM ñu wax ci li nga xamante ni mooy actualité wax ci mbiru inondation yi ci Sénégal gis nañu inondation yi ni mu mel ci ci réew mi gis nañ gouvernement bu Sénégal déclenché li nga xam ne moom mooy plan Orsec plan Orsec nag yéen mën nañoo wax ne sax ku tudd plan Orsec rek seen xel day dem ci yéen ndax yow yaa ngi woon foofu yaa ngi woon foofu PDS mais inondation yi ci Sénégal. gisoon nañ tamit Macky Sall daal di wax ne lu ëpp 750 milliards def nañ ko benn projet ngir saafara mbirum euh, inondation yi ñu toog ñeenti at mu ne inondation jeex na senegal ba ñenn ñi jàpp ko sax ne euh, daf ci doon bàkku euh, ban commentaire nga ci def. xam nga booy jiite réew surtout jamono ji fi ñu toll nga xam ne loo wax am na fu ñu ko teg ëllëg boo waxee leneen ñëw da xool ni ngay waxee ak ni ngay def. inondation yi dafa am base parce que am na benn carte boo xamante ne nii fépp fuy tàndox maîtriser nañ ko mais yooyu bi nga xamee ab Ablaye Wade ñëw na dafa créé woon ay bassin de rétention hmm. mais ni ñu ko defee woon moo doon problème bi parce que amoon nañ nit ñu ci doon lap et tout ce qui léegi fi nga xamante ni ndox mi boo gisee autoroute bi taxaw fi mu ne fépp fu ndox doon jaar rek. Hmm. dañ ko wutal pont mu dugg ci. waaye route nationale bi assainissement bi pose de sérieux problème nit ñi ci seen bopp dañuy jël ay ay deru xar ay deru di ko dugal ci canalisation yi mm-hmm. lépp loo xamante ni soxla nañ ko pour euh, kii euh, canalisation yi xam nga dafa am ay kubéer en aluminium mm-hmm. nit ñi dañ koy sàcc di ko jël naan dañ ci def yi marmite xam nga loolu bu fekkee état bi nga nekk bi fi nekk mm-hmm. liggéey bi maîtriser wu ko totalement. te li nga waroon li mu waroon def. defu ko ci carrément parce que Macky Sall it moom président de la république dañ koy wax ne ko lii la ñu def lii la ñu. kon ñi si am responsable dafa bëri ci inondation yi. ah oui ñi am responsable dafa bëri. population bi am na ci responsabilité. ci inondation yi waaw. Mhm. état bi am na ci responsabilité. urbanisme fii taay ndox et tout ce qui s'ensuit dañ ko waroon aménager ba nga xamante ne nii bu ndox mi ñëwee au moins dina mën a dem wala ñu kii ko mais gis nañ nit ñoo xam ne dañuy liggéey ci biir ndox. japonais yi am na yu bari seen kër yu bari ci ndox mi la nekk yow nooy defee ne sa kër ci biir ndox ba pare ndox di la jaaxal donc question de question de euh, démarche la une façon boo xamante ne nii conception bi moo posé problème. léegi ñi dëkk fii bërëbu ndox yi. ñi dëkk ci. Ah, bërëb ah, léegi ah. léegi léegi donc euh, bu ndox tuuroo comme on le di ak ak. an bàq ñi nga xamante ni ñu ngi nekk ci kii bi nu mu tuddati ci fi nga xamante ndox maa ngi fa bari bay bëgg ñu dëkk fa ñu dëkk fa euh, loolu boo ko xoolee sax sa yaram day daw Sénégal warul woon toll foofu parce que assainissement bi waroon nañ ko def d'une manière boo xam te Sénégal géej a ko yor mm-hmm. géej yi lépp luy ndox rek mën nañ ko fa déverser mais boo gisee yooyu yëpp amul loo xamante ne ni comment dirais-je am na ay conduite yuñ ko war def parce que dañ ko dénk ñoo xamante ni dañuy wax ni lii la ñu def lii la ñu def et tout ce qui s'ensuit war ko defuñu dara xam lan moo leen feeñal. xam nga Sénégal dafa nekkoon ci sécheresse. Afrique sécheresse boobu nag ëlbatiku léegi taw bi ñëw ak force kon liñ loolu wax ne def nañ ko lépp amul dara lu ci doon dëgg. ci Macky Sall. ci responsabilité ci Abdou Diouf d'abord. ci Ablaye Wade par la suite une partie. ak Macky Sall di ñëw nag moom it bu toogee bay bàkku naan inondation bi génn c'est parce que il n'a pas compris. d'accord mais mais mais mais euh, euh, Cheikh Tidiane Touré yaa ngi dégg ñu ne euh, lu ëpp 750 milliards yi ñenn ñi di sàkku ab enquête parlementaire PDS génne na communiqué di sàkku ñu convoqué gouvernement bi lan moo ci sa xalaat ci loolu. li may xalaat mooy 750 milliards yi moom buñ ko dugaloon ci dëkk bi dëkk bi du mel nii. ah bon mukk mënul ne. Hmm. te ñun yoruñu chiffres yi de chiffres yi. dégg naa am na ay analystes ay politiciens yuy génne ay chiffres ñii ne 26 pour cent lañu ci dugal. ñii naan 6 pour cent lañ ci dugal. Mm-hmm. en tout état de cause mooy mënuma la wax ni chiffre bi nii la demee. Mm-hmm. mais xam naa ni les tenants et les aboutissants ñu ci dugaloon xaalis boobu. Mm-hmm. kon tey jii di di yëf yi ni mu demee du demee noonu. léegi nag. li fi nekk ba nekk fi mooy lenn. non seulement dañ ci war a jublu mais loolu balaa ñu ciy jublu mooy ñi nekk ci ndox bi di dee. nekk ci yeneen maladie yi dañ leen war a extirper comme ni ñu leen defoon. feebar bi bi mu génnee. Ah. ñu jël leen yóbbu leen. mais déclenché nañ plan Orsec. plan Orsec bi dañ ko déclenché mais xam nga état ne peut pas mm-hmm. il faut population yi. Mm-hmm. tu comprends euh, dugal ci seen loxo. Mm-hmm. te population bi bu fekkee ni tey jii am na ñu am alal ak ñoo xamante ne amuñu man je trouve que nii am na kër yu bari yu tëju am na ay. auberge yoo xam ne doxatuñu nit ñooñu ñu dégager leen ba nga xamante ni maîtriser nañu ndox mi évacuer ko ñu xool canalisation bi après ñu koy door a dugalaat. loolu mooy solution bi. waaye tu ne peux pas mënoo bàyyi nit ñi ñu nekk ci ndox mi. di di nekk ci ay difficultés yu mag. sonn ba pare nga leen nga leen war a bàyyi ëllëg ak si biir sur le plan maladie dañuy feebaraat beneen situation jóg man je trouve que assainissement Dakar moom. ak Sénégal même. ni ñu ko doxalee vraiment c'est pas. Euh, euh, euh, mais Cheikh Tidiane Touré plan Orsec taxoon na Abdoulaye waad taxawal plan Jaxaay loolu ndax kon projet la boo xamante ni Abdoulaye Wade mën na ñoo wax ne daf cee la joon wala plan Orsec projet boobu noonu dañ ko continué wul bi Macky Sall ñëw def ko continué wul. waaw waaw mais c'est que Abdoulaye Wade plan Jaxaayam boobu ni mu ko waxee. y a de contraintes mais moom jëloon na ay décisions yoo xamante ni am na important parce que plan Jaxaay bu fi nekkul woon. Mhm. inondation yi continuer nii kon day gën a am problème. léegi nag plan Macky Sall il faut que mu trouver mhm. benn système boo xamante ne intermédiaire boo xamante ni naka lay sauver ni fi ne ba pare nag une fois que ñooñu ñu ñu évacuer leen ñu jëm trouver. les tenants et les aboutissants woo technicien yi ñu jéem a trouver ndox mi naka lañ koy évacuer te bu ñu ko évacuer ndox mi naka la ñuy def boobu bañ a dellusi bàyyi ñëw dara am kii nga as ndox ma yóbbu ko après le lendemain mu taw ndox ma jël si waat xam nga loolu c'est pas c'est pas sérieux. d'accord loolu euh, euh, euh, ñu daal di wax ci li nga xamante ni moom mooy annulation dette africain gis nañ coronavirus bi réew yu bëree bëri ci Afrique sonal na leen Macky Sall ñu gis ko mu mel ni ko sol robu avocat chef d'état africain yi di sàkk ñu baal ñu bor bor bi nga xamante ni africain yi amee nañ ko yow lan moo ci sa xalaat. bon lii sama xalaat mooy àddina moom tant que mu am ay bor dina fi am. Mm-hmm. loolu mooy li ci nekk mais boru Afrique yëpp bu fekkoon ni li nga xamante ne moo taxoon ñu. ñu ñu leb ko. Mm-hmm. bu fekkoon réaliser woon nañ bu fekkoon réaliser woon nañ ko loolu. Mm-hmm. kon tey jii du ñu nekk ci problème bi. léegi nag c'est normal que affaire bor bi dafa technique. parce que yow xam nga bu fekkee ameel nga nit un million. nga toog dix ans kii woo ko ay intérêt moo ci tegu. dëgg la intérêt yi intérêt intérêt intérêt ba finalement. principal bi. mais mais fi nga ko dugal boo amoon rentabilité sax. kon sax moo ñu mën a wax mais dara. koo fi ñëwee am na loo xamante ne nii mu ngi jëm ci lii ci xarit yooyu et tout sax bor bi daal dafa nekk. loo xam mais est-ce bi fi ñu ko fi ñu ko war a dugal ñoo ko fay dugal. li ñu leb mooy en fin de compte. Euh, priorité quoi. priorité bi mooy en fin de compte euh, priorité ñun suñu priorité mooy doon ñu fexee ba mën a dundal suñu bopp. li ngay bay li ngay lekk nga bay ko. agriculture bi dafa nekk foo xamante ne nii c'est important. nit ki bu ma amee lu mu lekk. fi muy dem. mu am tali yu baax. bu feebaree fi muy dugg. mën a faj loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk après nag ñu jublu ci production bi les jeunes la ñi fi nekk yëpp nekk di raxas ay otoog yooyu mais loolu bu fekkoon engagé woon nañ leen ñu nekk ci tool yi di bay aménager ko kon tey jii Dakar kenn dootu fi nekk te yëf yi dina gën a développé wu. loolu mooy enjeu bi léegi. dañ ne wax développement. Euh, ni nga gisee gouvernement ak Sall bi. ni ma ko gisee euh, dafa am loo xam ne développement pour mu am il faut mu am ñetti yëf njàng mi il faut que xale yi maîtriser njàng njàng mu leer te boo demee université boo demee ñëpp ngi grève kenn liggéeyatul kenn jàngatul et tout ce qui s'ensuit. production bi. Mm-hmm. existé wul lu Sénégal di produire aujourd'hui tali yi. Mhm. ban tali moo baax Sénégal à l'heure donc yooyu yëpp boo ko xoolee da nga naan ñun au lieu que ñuy avancer ñu ngi reculer. loolu mooy situation bi. Euh, mbokk yéen a ngi déglu Rewmi FM ñu invité Cheikh Tidiane Touré mu nekk expert euh, cargaison maritime aérien et terrestre nekkoon na fi euh, ancien directeur général bu COSEC. jiite woon na fi euh, cadre yu PDS euh, monsieur Touré bëgg naa ñëw ci euh, li nga xam ne mooy déclaration patrimoine bi nga xamante ni tey ñenn ñi dañoo jàpp ne bu ñu ko defee luubal ak ndëngate gi nga xamante ni ñenn ñi ñuy dénk alalu réew mi ñoo ngi koy def loolu mën naa wàññeeku ndax jàpp nga ne loolu solution la. loolu aussi dafa nekk loo xamante ne nii piège la li tax mu nekk piège yow bu fekkee déclaré nga sa patrimoine mais patrimoine boobu euh, ñi koy xam rek ñoo ko war a xam population bi du ci xam dara population bi. dañ ko war a xam dañ ko war a xam. yow boo amee lii am lii am lii am lii booy dugg dañu war a publier purement et simplement lii ak lii nga am ëllëg ak si biir bu nu gisee leneen yokk ci population bi dina ko xam waaye loo xamante ni seen diggante la yem entre gouvernement bi et tout ça ñu nekk seen diggante ñu ne patrimoine et tout ce qui ku nekk di nga mën a wax lu la neex ou bien wàññi lu la neex mais kan moo koy contrôler ñoom ñooy contrôler ñooy dugg di génn kooku ay tappale la. Euh, euh, Cheikh Tidiane mbirum euh, troisième mandat ñu bari ñoo ngi koy wax am na ñoo xamante ni ay jege ñaale Macky Sall bi ñu waxee ne Macky Sall warut def ñetteelu mandat dañoo gis ne ñooñu dañ leen a dàq mbirum ñetteelu mandat commencé nekk actualité yow lan moo ci sa xalaat. loolu dama ci sawar a wax parce que dama fekk. fekkee Macky fi mu commencé ak fi mu ne ak fi mu jëm. fan commencé. Macky bi muy commencé nekkoon na koo xam ne gouvernement premier gouvernement Sénégal bi Abdoulaye Wade def nekku ci woon. ba tax na nekku ci woon nekku ci woon. Uh-huh. ba tax na euh, sëgam nekku ci woon mu nekk loo xamante ne nii euh, fu nekk naqari woon na ko trop. muy dem ba nekk fii directeur général bi ñu koy fal directeur général may dañ ma faloon directeur général moom mu yor. Petrosen man ma yor COSEC. yàlla nag mooy def li muy wax diggante bi moo am ay luñ ko fal premier ministre yooyu yëpp ba mu évoluer ba nekk ba fii ñu bokkoon xeex boo xamante ne nii troisième mandat bi dañ ko doon rejeté man Ablaye Wade ak lu ma nekkoon ak moom yëpp troisième mandat bi dama ko mag ki def ci xeex. ba tëdd ci suuf donc. avant muy génn PDS. avant avant oui léegi mu toll foo xamante ne ni dem nañ ba nga xam ne def na premier mandat def na deuxième mandat mu nekk fi di ñu indil ay constitution ay mais yooyu dafa doy waar Macky Sall xale la tey jii bu bàyyi woon war na doyal ci Sénégal parce que 12 ans ku ko def. war nga dem seeti leneen. mën a occupé leneen si àdduna mën a occupé waaye nekk fi dugg ñu koy duggal ci ay troisième mandat wax naa ko ko. Mm-hmm. sama page Facebook te lu ma ci bind mu liir ko. Mm-hmm. xam na ni man mii duma ma foog. lu ma ci bind mu liir ko. Mm-hmm. ba tax na. Euh, xam na exactement. Euh, sama position ci loolu. warul def troisième mandat. warul def troisième mandat tey. warul ko def ëllëg. te bu ko defee. dina gis lu mu mësul gis Sénégal. te man yéenewuma ko loolu parce que lu bon bon au moins boo gisee Cheikh Touré nekk Cheikh ngi nii boo gisee samay mbokk xamante xamante nañu yéenewuma ko loolu. kon da ngaa gis ne Sénégal duñ ko ko may. non seulement duñ ko ko may mais day indi loo xamante ni nii dañ koy pousser ci faute boo xamante ne nii te faute bu ko continuer CPI lay mujje ah bon tribunal ba lay mujje parce que nit ñi kenn du ko nangu kenn du nangu loolu. Macky Sall kon ko yóbbu CPI. taxaw ne day forcé nit ñi génn ci biti mu commencé fetalat def lu nekk nit ñi di dóoree tout ça nit ñi daanu di dee mais kooku il faut mu rendre compte te yow gis nga Sénégal ni nga ko gisee ni jàpp nga ne askan bi duñ ko bàyyi bu def ñetteelu mandat jamais de la vie parce que Sénégal nag lu doy kéemaan la man dama nekk ci opposition bi di xeex fu nekk dugg naa tëj na ma kaso euh, lu ne def nañ ma ko fii Abdou Diouf lu nekk la ma won ci àddina waaw mais euh, li ma jaaxal mooy Cheikh Tidiane Touré yow président Macky Sall euh, sa xarit la bi mu doog di euh, toog amoon na benn kuréel boo xamante ni yow yaa ko jiite woon ay xaritam. waaw loolu loolu xam nga bu fekkee nii moom falu na te ñu nekk ay xaritam nekk tout ça te lay nekk ci ñun parce que man dama nekk ñekk diggante ñetti président mm-hmm. ñaari président Ablaye Wade ak Macky ma nekk seen diggante. Mm-hmm. Ablaye waat li ma ko jëriñ. Mm-hmm. bari na Macky Sall. li ma ko jëriñ également bari na kon boog ma am chance boo xamante ne nii ñaar ñëpp xam naa leen léegi mënul dugg ci dara di ci xeex parce que man li ma wóorte woon Macky Sall bi ma xamoon xelam nekkul ci troisième mandat defe naa nag dina bett ñu bari parce que bu ñu demee ba ci cëppaandaw ga dinaan dama doon bañ rek ñuy wax troisième mandat di yàq sama gouvernement waaye man du ma nekk président du ma nekk troisième mandat ba jusqu'à preuve du contraire. loolu laa jàpp. mais bon ñi muy dàq aussi dañu dañu wax seen point de vue erreur la parce que Macky day nekk koo xamante ne day clignoter à droite tourner à gauche ñi muy dàq ñi ñëpp naan ci la jëm. je pense que jënd est-ce que jàpp nga ne tey euh, Cheikh Tidiane Touré tey bu demoon tey ba keneen wutu ko euh, jàpp nga ne euh, ni mu fi indee woon tey ay nit mu ne leen rendre leen compte ndax jàpp nga ne ku fi toogoon tey ñi ànd ak Macky Sall danañ rendre compte. waaw loolu xam nga aussi réew mi ci boppam moo ko moo ko demandé. Mhm. parce que même ñun ñii kuñ ci dénk boo génnee il faut ñu auditer la seet li nga def ak loo deful kooku moom c'est normal deuxièmement ki ñu fal ñëw ñu ne ko lii moo am léegi kooku balaa muy jël responsabilité il faut que mu étudier li fi ne mm-hmm. boo étudier li fi ne lépp loo yor ci alalu askan bi mm-hmm. boo génnee waroo sax xaar ñu auditer la yow yaa war a rendre compte joxe sa li ci nekk mm-hmm. après nag ñu xam ni lii ak lii am na. d'accord mais Cheikh Tidiane Touré lan mooy sa relation ak Macky Sall jamono ji dara. Hmm? Macky Sall. Hmm. ba ñuy fal affaire ba nu mu tuddati ba ñuy ba ñuy ba ñuy créer pour jàppale ko. Hmm. jàppale boobu ñu war ko jàppale mu toog buy def du la woo du la wax sa xalaat te foo tourné ñu ne la waaw yow. sa xarit bi lii la et tout ça man daal ba ma gisee loolu laa ne man kenn du ma yaay xaritu Macky Sall te buy def doo yëg te bu subaa nga nekk ci ma am responsabilité. defuma ko tey defuma ko ëllëg moo tax ma bàyyi lépp daal di ne sëgam dama am métier ma ñëw nekk sama métier di ko liggéey. d'accord est-ce que Macky Sall jàpp nga ne tey euh, ñi ko wër ànd ak moom ñoo ngi koy xelal xel boo xamante ni tey euh, bu baax la ci moom waaye bu baax la ci réew bi waa non non c'est-à-dire euh, aujourd'hui moom mooy def choix bi parce que am na borom xam ak ñu am xel yu rafet léegi na bu choisir ñi nga xamante ne am nañ xel mu rafet topp leen dina réussir mais ñi nga xamante ne seen intérêt la bu leen choisir dina échouer mm-hmm. loolu mooy situation léegi nag boo gisee situation yëpp loo xam ne day développé dëkk am na yu bari yoo xamante ne nii. Hmm. ni mu waroon demee demeewul noonu. d'accord euh, sànq tey euh, gis nañ ci journaux yi ñu wax ne euh, li nga xamante ni mooy CREI yi depuis 2015 réuniruñ magistrat ya fa nekk liggéeyuñ amul benn dossier lan mu nga gisee taxawaayu CREI yi ndax am na jegeñaale Macky Sall yoo xam ne sax ñoom jàpp nañ ne dañ sa a indi ay moo ci sa xalaat. lii sama xalaat mooy CREI yi dañ ko war a tas décision bu mësoon jël dañ ko war a supprimer. muy Karim Wade ak Khalifa Sall ak yépp dañ ko war a supprimer parce que loolu dañ ko créé woon rek uniquement pour des réglement de compte règlement de compte boobu nag nit ñi kenn dootu ci xale am na loo xamante ne nii euh, euh, nu mu tuddati mooy prouver ni yi boobu ay tappale rek ku war leelu moo ci nekk parce que jël vingt cinq personnes ni dañ leen di yóbbu ji xëy suba jël ci deux personnes yoo xamante ni nii ay candidats yu garaaw la ñu woon pour élection yi kooku dañ ko war a supprimer décision yi mu jëloon yépp ñu rejeté ko parce que muy CEDEAO ñépp dañ ko rejeté euh, kii sur le plan international et tout cela ça m'étonne pas ña nga fa defloo nañ leen leen di defloo léegi ña nga fa nekk di tourner les pouces et tout ce qui s'ensuit su ma doon moom non seulement dinaa ko supprimer mais supprimer également kii nu mu tuddati con euh, conseil économique et social environnemental HTTC euh, yi nga xamante ne nii jëriñu dara ah ñu jéem a xool naka lañ koy supprimer créer loo xamante ne nii wala créer ti wala. li fi euh, nekk ñu mën a évoluer. kon da nga jàpp na yow euh, conseil économique social environnemental ak au conseil des collectivités territoriales ak yi dañ ko war a dind ci réew mi. dañ ko war a dindi amuñu fi benn benn benn benn benn njariñ. benn njariñ njariñ amuñu ko fi te man xam naa ni kenn du leen dégg. li ñuy wax taxawul nekk na loo xamante ne nii vraiment ce n'est pas opportun pour le Sénégal. liggéeyu OFNAC ndax dal na sa xel. bon nag également euh, ni ñu ko créé ak li nga xamante c'est le président de la république moom la ñuy rendre pour moi loolu sa pose des problème il faut que baax na mais il faut que ñu réformer ko. d'accord jox euh, euh, ndax jàpp nga ne yow politiquement Karim am na avenir ci Sénégal. bon xam nga Karim Wade qu'on le veuille ou papam du fi liggéey te moom bi mu jëlee réew mi am na loo xam ne jot na ko def. te tey jii sénégal yi. ku avancé loo dëkk bi la ñu bëgg. ba tax na ah bu fekkee gën na convaincre joxe ab programme bu leer. am na structure yoo xamante ni ci la adossé wu papam bàyyi ko fi mën na ko yóbbu au pouvoir. d'accord jërëjëf euh, Cheikh Tidiane Touré yow la ñu invité woon tey léegi ci euh, une minute rek lan ngay liggéey jamono ji léegi man euh, dama nekk expert nekk expert agréé bokk ordre national des experts du Sénégal. nekk fa président de la section maritime dama am métier moo tax politique ba ba Ablaye Wade gunge naa ko ba 2012 ba mu paree man dama delluwaat sama cabinet di liggéey sama liggéey nag mooy effectivement expertiser li nga xamante ne nii dénk nañ ma ko ma koy évoluer loolu daal ci laa nekk te am naa yaakaar ni at yi ñu am xam-xam bi ñu am kenn waru ko téye denc ko ci dañu war a jël ay xale yu mel ni yéen jox leen loolu ñoom ñu mën a jël loolu laati demaat parce que dëkk bu la raw rek parce que seen maam am la lu jógee boo gisee Renault Peugeot et tout ça seen i mamarché ko defoon tey ji ba tey mu ngi existe lan ngay tàggoo euh, di leen tàggu rek di rafetlu li nga xamante ne nii euh, def nga ko ñëw fekk ni ñu mel ni ñun xamuñu nga ñun kenn duñu posé ay kii kenn duñu jox micro wala ñuy wax parce que peut-être seen xamuñu bu baax waaye ku gis suñu itinéraire fi mu jàll ak yow ni nga def ba dénicher loolu ñooñu defe naa ni da ngay continuer ci ak ba xam ne ñu bari ñu nekk naa l'ombre loo xamante dañ mën a indi lu leer pour Sénégal loolu laa lay gërëmee vraiment di la bu baax. jërëjëf euh, Cheikh Tidiane Touré euh, nekkoon ancien directeur général bu COSEC ancien député euh, nekkoon fi tamit ministre conseil jamonoy Abdoulaye wadd nekkoon na fi conseil spécial président Macky Sall jamono jëmi nekk premier ministre bu Sénégal mu nekk expert cargaison maritime aérien et terrestre jiite nag cadre PDS dur bu yàgg yàgg moom la ñu invité woon tey ñu koy sant bu baax di ko gërëm di rafetlu waxtaan bi di nuyu sunu mbokk auditeurs yeeg sunu mbokk auditrices yi mbokk yi mu nekkoon seen émission pencum réew mi ngeen di si ànd samedi bu jot Abdou Khadre du jaaw a Diallo moo nekkoon ci wàllu technique bi eh, jaa ngeen jëf jàmm ak jàmm.